bu dee wàcc mais vidéo bii gis ngeen kii xaw ma Cheikh Ahmed. Naby Vision mais li mu sosal Ousmane Sonko man dégg ko ko wax. vidéo bi gudd na leen vidéo bi kii li mu wax Ousmane Sonko garaaw na na leen ko déglu te dem te ñoom yenn relation yi lu jaral laaj la ndax itam ñii nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi tuuma bii daf leen mas topp rawatina. Euh, Ousmane Sonko Ousmane Sonko depuis digganteem ak Adji saar lii ñuy tuddee ak nguur jigéen dañ koo teg ci deram ndax Adji saar ci boppam moo wax ne Sonko doon na sëy ak moom ci ginnaaw tuumaal ko ci wax ne lu mu bëgg la ndax moom la daan def ak moom kon bu fekkee tuuma boobu dal na Sonko mu di kilifa war na mën a moytu nag ndax ku ñuy jiiñ bëti guddi doo soccoo yeelu gone kon bu fekkee ne tuuma bi tegu na ci kawam ma déggaat ku ñuy wax baa jaxate ndef waxtaan ne lii may wax bu dul dëgg na ma Sonko porte plainte tuumal ko ci ne doon na siq ak ku ñuy wax njaga sekk ba gaañ ko ba mu dem hôpital di faju lan la ñu siqoon sëy boo xam ne sëyu góor ak góor la loolu nekk lu ñaaw loo xam ne depuis ba wax ko gisuma soxna gisuma Sonko def benn réaction ci loolu pour wane ne taxal nañu deram pour jéem ko ragg ñaareel ba wala ñettel ba moy biñ ko falé meeru Ziguinchor gis nañu fa ñëk recevoir France gor Nidelwa la ñu wat gis Sonko ci bopam mu yor ben parasol bo xamné ne Je Vision ko mu ci réseaux sociaux yi ko ko gis di doxantu couleur bi couleuru drapeau góor jigéen ñi la loolu lépp di ay tuuma yoo xam ne da koy saxal toujours te du ma gis mu weddi ko ñu fal leen jox leen réew mi que ñu njëkk a fal que ñu njëkk a invité ca pale ba dib góor jigéen ñu coow ko fii coow lu réy ba maam Makhtar Gueye génn na ci wax ci waxtaan wu yaatu ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant bërki démb université kii ñuy wax Jean-Luc Mélenchon ñëw fi ñu recevoir ko ci daara ji gën a mag nga xam ne mooy symbole bi gën a rëy ci réew mi ñu fay tàggatale ñu fay tàggate ñi war a yor réew mi ëllëg te ñi yor réew mi yëpp jaar fa université boobu fa leen yóbbu saay-saay bii mu taxaw wax ne ci kanamu étudiants yi ci kanamu suñuy ndaw di suñu yaakaar. Naby Vision. ne ma njëkk a xeex ak ngóor jigéen ci France ba ñu nangu ko fa góor di sëy ak moroomu góoram. góor di sëy ak moroomu góoram. nee na loolu moo ko njëkk a xeex France ba ñu légaliser ko. kon dafa mel ni mission boobu moo ko indi senegal te mënu ko fee doxal nak la tank jappalé wuñu ko te arab fay wax ne annaasu ala din mulukihim peuple bo gis la seeni njit gëm mu di seen diiné mom lañuy gëm té dafa melni sonko daf bëgg gëm lo ak ngor jigen ne ayul. lolo waral bobu ba légui ngeen gis kilifa yi di ñew ci seenu kay di len ba mu nekké maire biñ leen joxee réew mi ak bërki démb kii ñëw di Jean-Luc Mélenchon wax waxam bu rëy bii ne moom moo njëkk a pour ñu légaliser ak ngóor jigéen France ba góor ak góor di mu mel Abdou Karim Xurum Xaas wax na ne bi criminaliser góor fii ci senegaal mbooloo ànd sàmm jikko yi di ko xeex demoon nañ ci Sonko pour mu signé mais dafa bañ nanguwut a signé nee na loolu jaaxal na ko te sax mbooloo sàmm jikko yi nga xam ne ababa kër Mboup moo ko jiite am na ñu waxoon ne mbooloo moomu lobby la boo xamante ni dafay publicitéel góor jigéen ñi même Cheikh Omar Diagne wax nañu ne itam nit la koo xam ne dafay publicité lu góor jigéen loolu lépp di ay tuuma yu taxaw ba ci kastiloor yi nga xamante ni Sonko daan na wax pour ñu koy tëgg di manifester waxoon nañ ko ne ko loolu baaxul ci réew mi ndax góor jigéen ñi ba ñu dee xeex seeni droit ca tugal ca Europe moom lañ doon def di tëgg ay kastiloor kon nag boo ko defee roy nga leen ñoom góor jigéen ñi ba tey rek dafay mel ni empreinte góor jigéen dafa génnul ci parti bi ñuy tuddee Pastef dafa mel ni dafa am lu ñu d'accord lu ñu wëllërante pour doxal ko loolu lépp nag di musibab senegaal ndaw ñi ngeen yeewu bàyyi seen bopp xel xam ne ëllëgu senegaal mu gaay vidéo bi dafa gudd mais kii après dinaa ko defal ab vidéo spéciale moom dong tontu ko kam nag imaam la boo xam ne daa si keɗo tontu tontuwul ci diine nan ko tontu si gereede gu mu tontu gi mu waxe Ousmane Sonko kam da nga rew dina la wan maa la gën a réew damay soog a wàcc daa guddi bu subaa dinaa la tontu si du suñu borom doom ram imam yi ngeen doon intérêt rek ngeen doon Ousmane Sonko la gën gën sa bay gay daw fenn ma ñewat ki ni duma ko bàyyi de mo ki ñaar ni duma leen bax la ma leen waxon rek Sonko gën sen nday gën sen bay yow fenn kat bu xawma Ahmed Cissé la xawma Ahmed nam tuddu astaghfirullah man Ahmed Cissé ki mo dàq a ci Sénégal te nee imam la. yow sosoloon nga fi Ousmane Sonko ni mo wax ko ray sa nday jurat nga sosol fi Ousmane Sonko ni gëmul yalla idéologie Thomas Sankara lay top. yow tay nga ñëwaat ci fa sosol Ousmane Sonko ta jang xam li diine wax nga ni Ousmane Sonko da dan tedd aji sar ci ginaaw Ousmane Sonko da don tedd ay goor yow lolu sa lamagn bii nga nekk imam nekk ab oustaz nan nga ko mën a nan nga mën a waxee jëf ju ñaaw ju melni mais ay ram ngeen yéen xamne lu leen wax fek wacc lu Ousmane Sonko du leen wacc ñun dañuy opposé wu ba léegi te réew mi ñun dinañ ko def billahi réew mi dina bax yeen da ngeen bañ réew mi bax ñun taxaw pour ndax suñuy bakkan nan joxe ba réew mi taxaw kon yeen do leen tax réew mi dem ku tedd ki yow liggéeyal bàyyi nag ñom ay doomaraam jub dubal jubanti bu sooba yàlla assalamu alaykum wa rahmatullah patriote yi ma di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm ak salam ah waaye yenn yi nit da ci rek dellu ginnaaw de ah man damaa xam ne fii kuñ fi naw ak kuñ fi fonk boo demee jéem a seet noo def rek boobu fekkee ne bëgg nga wàcc ba ci suuf a suuf ñu di la nappaaje rek jéem a la dut baaraam Seydina Ousmane Sonko mu sell mi bañ nañ ko ba ne ku sell ki ku sell ki mu Seydina Ousmane ku yàqe wa xam ni nga ko defaraat ku doon nëbbu sa ñaawteef ak sa mbon ak sa jikko yu bon boo duggee ci Seydina Ousmane yàlla day mel ne dalay ñi ba nga set mu teg la ci pénc mi koo xam ne nit ñi dañ ko nawoon fonk ko mais dafa ci coowal Seydina Ousmane bi da cee tuutal boppam doye di ci xale yi di la taf di la saaga te nga nekk koo xam ne nit ñi nawoon nañ la muy Cheikh Ahmed Ndaw nit ñi fonkoon la bëgg la xaw ma lu la dugal ci jéem a eh, yàq Seydina Ousmane ak jéem a wax ci moom lu dul yoon lu dul dëgg yéen xamul leen ko dara di sos di wax loo yéen man dama jaaxle dama ne Sénégal ndax fii ay eh, lenn ci sunu kilifa yii ñoom lu leen dal yow média international bi yëpp jàpp Seydina Ousmane di ko yàll yàllee di ko xas ndax dafa xeex homosexuel nangulu leen lii yéen nitu diine yi nekk Sénégal ne da ngeen koy xas ndax dafa jàppale góor jigéen mais yéen yéen a bon yéen ay sagari nit ay ñoom maam Matar ñu kenn xamul gis nga seen chantage yi ngeen daan def ak yeneen état yi di di di leen jéem a chantage di wax dara pour ñu woo leen noppiloo leen bu dee fii du dox ak ñun Macky Sall lacrymogène la yoron armée ray tej te tewul dañ ko affronter ba jëlee réew mi ci loxom téye réew mi nak liñ fi wara fajj len la ku fi fenn la ci ak fenn la te as ngor ñu woola lijjanti la fenn yoy nga genn wedd ko bu mu set wicc la nga waxon ta xamne li nga wax du deug nga dindi ko bu set wicc wala ñu set fuñ jaar ak yeen nabi vi su ku ci bëgg jamm ku ci bëgg sa cër yokku da nga bayyi sayyidna usman ci koku ku ko naw fonk ko bu yëkkati ko yàlla yëkkati la ku ko xeb bëgg koo tuutal bëgg koo toroxal yàlla toroxal la il faut ngeen nangu loolu samp borom bi subhanahu wa taala ku ko attaqué doo ci am ndam dafa baax dafa set dafa sel dafa ragal yàlla dafa jub dafa jubal dafa jubanti tee ngeen am xippee xool ci moom baa wax lu baax ci moom ku ko songu sànku de billaahi wallaahi ku ko songu sànku. Ahmed Tidiane ndaw mi kay lu am na indi moom ku ami téegal indi ku am ay doxantu indi ku am ay saw indi doomi xaj dëgg ngi nii naafiq piir a ngi nii li Sëriñ Tuubaa doon wax naan inna lazi lam yaxsa rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funun koo xam ne ragalul yàlla donte daa boole woon fànnay xam-xam yépp du boroom xam-xam waaw il faut ragal yàlla bi yàlla étiqueté borom xam-xam yi naan innama yaxsa allah min ibadihul ulama borom xam-xam yi ragal yàllaa tax muy wax waaye kii naafiq dëgg la Ahmed Tidiane Ndaw mi jëlewul fenn référence bu dul ci bàjaxati mii nga xam ne fenn lay def di dunde en tant que borom xam-xam man man na maa comprendre ma Maxtaar Jamra mi nga xam ne xamul naara mais Ahmed Tidiane Ndaw mii man ku ma bett la man ku ma bett la bett na ma torop torop torop torop wallahi laasim borom xam-xam bu toll ni moom ni baat bi neexee nga xam ne bu dee wax doo doyal tey jii mu wàcceeku ba toll ni suma radadnaa asfala safili ni gën a suufe bayi ma man man man Ahmed Tidiane Ndaw mi bett na ma de lu waaye am na indi bu waaye amee téegal ndeyam na indi bu waaye amee ay doxantu na indi sotti ko bu waaye amee am saw na indi sotti ko doomi xaram piir ngi nii naa naafiq dëgg ngi nii mooy Ahmed Tidiane Ndaw yàlla xam na ko ko war a jox ah. borom xam-xam dafa yelo teral bu dee borom xam-xam ragal mais borom bu ragal yalla mais borom xam-xam bu nafiq ba melni Ahmed Tidiane Ndaw mi téegal ndayam la yelo ku deug ndayam ngi ni kuy kuy dul di dundé ngi ni kuy kuy kuy kuy jaay kuy jaay diinem di dundé kuy jaay ngor di dindé ngi ni domi xaja ngi doomi xaraama ngi ni ku ñak ngor ngi ni ku ñak diiné ngi ni nafiq ngi tuhjibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasmah liqawlihim ka annahum qushubun musannad boo gisee mun a tugg tuggeeral solo na yugg bu waxee nga kontaan bu jëfee bu jëfee nga xeeb ko. Naby Vision ku ñàkk daa ngi nii. bu abi yewoo nga ne julli piir a ngi nii ndeke bu waxee nga ne naa féq dëgg ngi nii mooy Ahmed Tidiane Ndaw li muy wax lépp ndekete nekku ci làmmiñ yi wa yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubi moo ma bett nag man moom ñëpp beex nañ ma waaye ax Ahmed Tidiane Ndaw a ci raw moom yàlla xam na ko Ahmed Tidiane Ndaw a ñàkk fayda dëgg dëgg dëgg dëgg waaw li sëñ Tuubaa di wax naan fa kasratil xilmi bi xayri adabin jaalibatan ilal asa wa taxat bare xam-xam te amuti teggi di jëme nit sawara Ahmed Tidiane Ndaw mi xam-xamam da koy jëmee sawara waaw xam da koy jëmee sawara laa la wax ndax xam-xamum naa féq dëgg la yor bajaxate mu naan bajaxate la dégg mu ne Sonko da doon jotee ku góor ni moom de illahi illallah boobu ñu waxaan muy wëlbatikuwaat di wax ci aji saar te moom xanaa bu defoon li ko alxuraan wax sax wërta wax loolu Kilang dañ ko warona a censurer waratu parce que in jaakum fasiqun bi nabayin fa tabayyanu an qawman bi ja'alati fatusbihu ala ma fa'altum nadimi Mom nag réccu la njëkke mom domi xaja ngi ni moy Ahmed Tidiane Ndaw ku ñak fayda ngi ni domi haram pire ngi ni bop moy rahsu système bu bu bon bi domi xaj pire ngi ni ku bëgg lu bon ngi ni ku ngi ni kuy jëlé référence ci ba jaxaté moy moy moy borom xam-xam bu naat ki lu way am na indi ci kawam 70 heures yu 72 heures yu sax nañ buñ 72 heures buñ xolé ba xam mi ngi dundam deet ñu ñu continuer buñ xolé xam na dee ñu bay ni ko Cheikh bara waxe doomi xaja ngi ni kep kuy patriote lo am indi ci Ahmed Tidiane Ndaw mi ku dégg waxam ji tay patriote am lo la nakal ku dëgg ndayam ngi ni nak mako wax lii la yello to ciot ndayam rek la yello